maa ngi tudd Modou Mbène Diop jóge Dakar yëmbal dëgg fa yàlla ñu ñëwoon tey fii pour taataan si leer yi nga xamante ni Serigne Babacar radiallahu taala anhu foo ko daan tëgalee Serigne Moussa Fassi naan ko xasir kañ nga may demal tool waaye nag loolu yëpp leer na adduna bi ne Serigne Moussa Fassi xasisahullahu moom mooy borom tiwaawan ndax lim ñu jàngaloon fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne màkk la juddoo waaye ay mbokkam dañ ko fa daan xatal ba mu dem Medina waaye nag ba mu ñëwaatee def retour xam nañ ni moom mooy borom Medina moo tax yàlla ne ko laa uqsimu bi haazal balad waaye nag anta xillun bi haazal balad loolu nag feeñ na si Serigne Moustapha Sy ndax dañuy xool rek euh, mois de mars woote na fii ñeenti woote yoo xam ne dafay fees dell njaboot gi taayiwuñ jaarul si télé bi nga xamante ni moom moo ko investir muy Mursi TV jaarul si ay rajo jaarul feneen disposition yoo xamante ne mënoon na ko faa jaarale kon da ngay seet ni rek liggéeyu nitu yàlla nga bañ nga nangu rek dafay dafay dafay ball moom rek la Serigne Cheikh waxoon Serigne Babacar anaasirul arban yi ngay gis yëpp Serigne Moussa Fassil la ñuy déglu waawam mooy waawu ñëpp képp ku baax waaye nag déetam moom mooy déetu ñëpp ci képp koo xamante ne dafa baax kon nag si lii nii képp koo xam ne sa xol féex na sa xol sell na di ko nangul moom cër gi mu am waaye nag képp ku ko nangulul da ngay tëdd rek di gën a bukki bukkaaral waaye doo dem fenn moo tax daal suñu Moustapha képp ku ko gëmul rek nitu leneen nga lu mu ne lu baax ñëpp ñu bëgg waaye nag ku ñu bëggal daa fekk ne ngay leneen kon nag dañ koy ñaanal yàlla waaye tamit capitaine bu ñu joxoñ damay lancer message ñëpp ne bu benn njaboot fexe ba capitaine mi raw la ndax am na si loo xamante ni nitu yàlla dong moom moo ko mun te nag cër la cër la boo xam ne Serigne Moustapha li mu am ci Serigne boo wóoroon di laaj adduna ne Serigne Cheikh ñaata doom la am dañ la wax ne xamuñu ko waaye xam nañ ni benn doomam muy Serigne Moussa Fall ndax taxawu gi nga xamante ni moom la taxawu Serigne Cheikh Ahmadou Tidiane sa ba muy métti sa ba muy neex waaye nag bu demee ba làqu ku ne génn bëgg a wan ni man njabootu Serigne Cheikh la bu boobaa dafay làqu kon nag Serigne Cheikh lancé wee la muy lancé ne ndaw ñi ñàkkoon nañ ko si fukki at yi paas Serigne Moussa Fall si moom moo jël ay responsabilités am fexe ba defar ndaw ñi. waaye bañ demee sa gàmm mi nag dañu maam Cheikh Ahmed Tidiane la capitaine mag ñaa ngi nii seen dara tardé wu waaye nag na a fexe ba ndaw ñi bu seen dara tardé kon nag dañ koy ñaanal yàlla yàlla mottalil ko yan bi yàlla ad àggale ko na yoon waaye nag yàlla bu ñu rëcc yàlla bu ko rëcc ñun benn kilifa lañu am te mooy maam Cheikh Ahmed Tidiane la capitaine moom benn kilifa la am muy Serigne Moussa Fass Serigne Moussa Fass donc mooy kiram di leen ziar di leen gërëm di yàlla yiw bu ñu fiy dajale ni yàlla nañ ci jariñoo yàlla nañ ci jariñoo waaye wax dëgg fa yàlla Maodo dal na si Serigne sëriñ Babacar sa xelam dal na si sëriñ Moustapha te sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane sa xelam dal na si sëriñ Babacar xam nga lu tax Maodo moo ni ko nu xale yi mokkalee sama taysir na nga fexe ba at mim bi di jolli te kenn du werante ne at mim bi mi ngi jolli Serigne Babacar ti moo ne ko xasir demal ma tool waaye nag fii nii képp ku ni teewaawoon ne Serigne Babacar kon nag Serigne Moussa Fass dong moo ko sagal Serigne seex na ko tabaxal ma fi daara kon nga xam ne al isaaru tak fii li man àqala kon nag ku mos di nga xam la muy saf waaye nag ku mosul da ngay dem jébbal sa bopp si nga xam ne mos nañ ba tàkkam asalaamaaleykum wa rahmatulah. ndax lii yëpp Serigne Moussa Fass moom moo ko waral tey jii am na neneen nuñ doon nekkee ci mi waaye ginnaaw yàlla moom moo waral lii di ko sant rek di ko ñaanal yàlla guddal fanam bàyyi ko sunu kanam ba lépp lu mu mébét ci njaboot gi yàlla mottali ko waaye ñu ne sunu mébét si moom yàlla mottali ko mais amuñu ci benn problème wax dëgg yàlla li moom waa Sëldéekaté rek ñoom ñoo ko organisé Euh, um, ay cellule waa cellule cadet ci biir section bi ñoom ñoo war a def li organiser ko pour nit ñi bu ñu ñëwee man cee jëfandikoo am nañ mën a dégloo macha allah ñëwee fii ci kër gi nit ñi ban yëg-yëg nga am. waaw kontaan rek kontaan rek ci waawoon moom saa yu fiy dugg rek xol bu sedd lañuy ñuy àndal ndax de bu ñu nee bu ñu doon wax ne tey jii màkka daf ñoo sori ñu ne màkka soreetuñu ndax am nañu tiwaawan moo tax saa yu ñu fiy ñëw rek xol bu sedd guy lañ fiy am ànday xol bu sedd guy rek di bëgg rek di ñaanal sëriñ bi rek yàlla guddal fanam bàyyi ko sunu kanam capitaine tamit mission bi mu yegg fa ko borom seenu daal dëgg yàlla. tur bi naka la. Malick la. Euh, tonton Malick ñu ngi lay euh, nuyu euh, ginnaaw bañ la nuyoo pare dañ lay laaj suñu première question mooy que ni bi nga ñëwee fii ci kër Serigne Moustapha Sy fas yéene ñëw teewee si programme bu mag bi gis nit ñi ak ni ñu ñëwee ban yëg-yëg nga am. waa xam naa kontaan rek ci na nga xam ni moom la nit ñi ñëwee ak yëg yëg-yëg bi nga xam ne am naa ko fi di ko rafetlu rek di ñaan yàlla mu gën a yokk te nu gën a xam ni kat am nañu koo xam ni kenn amu ko ñu góorgóorlu si rek taxaw si bu baax a baax ndax boo amee ko kenn amul bon war nga mel ku nga xam war nga mel noo xam ne kenn melu ko waaw di ñaan yàlla rek lu mu yaakaar lu mu bëgg si ñun yàlla na ko yàlla defal te nu góorgóorlu bu baax a baax ndax yéene la lu baax lépp bon yow da nga war am taxawaay bu baax a baax ndax yéene bu mu am si nun xëy na nun mënuñu ko matal waaye nag ñu jéem rek pour mu mat xam naa di jégalu rek di balaax di ñaan yàlla mu boole ñu jégal te yàlla di nu def nuy man lépp la nga xam ne woo nañu si rek monsieur man di ko teewe xam naa di jégalu rek wax. waaw di sant di yàlla tamit ndax boo nga xoolee li nga xam ne moom lañ def fii Tivaouane tey nekk na loo xam ne lu ñu tàmm la min vingt cinquième édition foo déggee vingt cinquième édition cela veut dire que ni war nañ ko miin ku ne ku ko xamul tamit dégg nga ko kon suñu teewaay fii tamit day nekk teewaay feddali kóllëre teewaay aussi ñëw en tant que njaboot ndax ñun li moom tàmm nañ ko xam nañ ko aussi niñ fi daan ñëwee rek lañ ci ñëwee di yëg-yëg bi ñu ci am moom ñooy mooy sant yàlla bu gën a sant yàlla bu ñu bu ñuy yëg parce que vraiment ku xam université Ramadan yi xam ne carrément que mu ngi avancé incha allah. te ñu ngi ñaan aussi avancement boobu tamit mu nekk loo xam ne mu jëm kanam bu baax a baax la incha mais ñu mel ni dañ la dégg sànq nga ni li nga xamante ni si mooy université du Ramadan bu ren bi mooy vingt cinq édition depuis boobu ba léegi yow lan nga ci jàngatee lan nga jàngatee université du Ramadan ak ndax yaa ngi def na ci yow changement wala nu mu demee. waaw bu ñu waxee dëgg rek macha allah université Ramadan yi cours yi si génn bi bu ñu xoolee ne mën nañ ne bañ a wax ñun tant que njaboot rek ñun dañu wax sax suñu suñu évolution ñun wala suñu suñu changement bi nga xam ne am nañ ko ci ci université Ramadan en tant que njaboot mais dañuy xool ñi nga xam ne en tant que nekkuñu Moustarchidine ba pare te ñi ngi ñi ngi jël enseignement boobu noonu mi ngi leen di jëriñ ñi ngi ciy jëfandikoo ñoom ñoom yëg-yëg bi ñuy am boobu ñoom loolu ñun suñu suñu fierté lañ ñun yëg-yëg boobu comme ñoom nag ñoo dem bay am yëg-yëg boobu ñun moom macha allah yal nañu yàlla dolli rek waaye ñi ngi ñi ngi ciy am yëg-yëg bu baax a baax macha allah. waaw ginnaaw bañ leen nuyoo ziar leen ci bés bu tedd bi ziar leen ci weeru koor bi di leen ndokkeel bu baax a baax a baax fii nag yaakaar naa suñ ñëw fi moom du lu bees quoi daanaka miin nañ di teewee jotaay yu mel nii fii nga xam ne moom mooy suñ kër kilifa di sëriñ sëriñ Mouhamadil Moustapha Sy bu ñëwee amul lu def lu lu kontaan ànd ak mbégte ak fas yéene taataan si. li nga xam ne moom moo fi am muy programme bi daal. Euh, yàgg nga di suivre lii di Jaama Ramadan ak Colisée de l'éveil yan jàngat nga ci tiire ci yooyu yooyu programme. waaw xam nga fii moom jotaay yi fi mënti am yëpp jotaay yëpp boo fi mënti ñëw rek di nga tiire ay leçons yoo xam ne daanaka dina xaw a dina xaw a bari lool. bi ci njëkk mooy xam-xam bi nga xam ne moom moo fi bale te ñu nampee ko ci suñu kilifa muy Serigne Mouhamadul Moustapha si ak euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane al Moustapha muy capitaine donc euh, mënuñu fee soit bu ñu fi ñëwee dañu fiy jël bind wala ñu nafar fi bind rek wala ñu tari fi bind quoi te à chaque fois buñ ñëwee dégg fi loo xam ne lu bees lay doon donc euh, bind ñu fi jàng bari na bari goo xam ni mën nañ di ci dund di ci dund durant suñu durant durant tout suñu suñu suñu dund quoi incha allah ak suñu tarbiya aussi donc li ñu fiy jàngee daal bari na bari na bari na torop torop torop waaw yëg-yëg bi ma am nag du ma bett nag ndax euh, njaboot yi ni ñu mel kilifa bi waaye tamit kilifa bi ak tabe bi mu tabe ci njaboot waaye kilifa bi tamit ak yéene bu mu yéene njaboot waaye kilifa bi tamit ak namm bu mu namm njaboot tax na bu woote woon man xamoon naa ne fii dina fees xam nga dañ koy faral di woy bu dee taw wala muy naaj mursit yaa moom kon li ma ci gis ma benn yoon li ñuy xaar nag mooy leer bi war a balle fii tey ci kilifa bi leer bi wala balle fii tey mu xam ku mënta yebal ndax ñun sëñ Moustapha bu yebaloon mursit yaa suñu déglu kon tey moo tax dara bettuñu ci bis bi tey euh, ñëw nga Euh, ñu war a def lii di ouverture jaami ramadan ak colisée de l'éveil fa tabarakallah du ñàkk ni yàgg nga ko teewe ana yan kàddu nga yëkkati ci programme boobu na waaw yàlla dimbale nañu depuis 1998 ba léegi ñu ngi teew ci université de ramadan donte na ay lañu depuis ñuy kade ba léegi euh, muy nag weer woo xam ne sëriñ Moustapha li mu ci tëral bëriwul boroom xam-xam yi ci tëral ndax ku nekk xam na ne bu weeru kon mu santeeru ñu ëpp ci jàkk yi tëral alquran bi tafsir la ñuy def moom nag mu amélioré ko ci façon boo xam ne fa tabaarakallaa fu nekk mën na ci gis boppam ñiy jàng balaaga di ci gis seen bopp ñiy jàng aru di ci gis seen bopp mboolem mawadde yi moom sëñ Moustapha danañ ko ci biir jaamiatu Ramadan ngir njaboot ji mën ca jëriñoo loolu nag mooy la défilé boo xam ne lancé woon na ko lu yàgg mooy bi may wax ne baale wu ma ñaar ñàkk jàng ñàkk yar fii nag boo fi ñëwee dëxëñ nañ ci ñaar yooyu muy yar ak xam-xam moo tax na ñoo ngi ñoo ngi wax mbokk yi ne ku ci nekk na xam ne la fa andi ci wàllu dal ci wàllu yaru ci wàllu mën a déglu waaye waa pare mën a dégg tamit ku déglu dégg te boo dégloo nag ba dégg nag di nga mën a jëfee ci penc ba ñëpp xam ne li sëriñ Mouhamadul Moustapha si tëral ku nekk war na ci mën a jëriñoo. Mhm. Euh, tey nag du euh, ouverture université de Ramadan rek mais colisée yi itam la loo xamante ni capitaine moo ko initié depuis daaw yow it yan kaddu nga ciy sànni ak yan kaddu ngay sànniwaale ci euh, jëmm jooju di man waaw xam nga colisée bi moom képp kuy njaboot rek da ciy bàyyee xel. ndax dafa gàtt ba pare ci lépp farata la farata la maanaam capitaine mooy koo xam ne temps bi ñu woy juróom may muy sëriñ Moustapha si capitaine du ko maye ndax borom yitte la te nee na farata yàggul comme na collège ubbi na yàlla may ñu saaf ñu fekkee ouverture bi nañu xam ne farata yàggul ñuy xereñ lu te teew la xam ne lu rëccaat rek balaa nga dabaatal ko mën nga cee sonn kon tey te dal rek bu ko defee comme ni mu koy faral di wax tey dal am pas-pas mën na laa may lu ne kon njaboot ji nañu tey nañu dal lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci rek mën nañ ko am facilement